kon da ngay xam ni sëñ bi dafa nekkoon koo xam ne daan dund ak tawxiid gu mat sëkk daal di koy te boolekoon dara léegi yaatal gi nga xamante ni sëñ bi yaatal loolu loolu dinaa la ci sofal dara mhm. bi ko tubaab bi woowee Jurbel euh, Dakar boobu mi ngi njaarim bi ñu ko wooloo dakaar bi mu demee euh, ñu woolu ko biro bureau bureau gouverneur ndax Dakar mhm. nee ñu bi mu demee bi mu duggee ci biro bi siège bi ñu ko njëkk tegal toogo bi ñu ko tegal ci bunt bi pour mu toog togg bi daa jël ndox sotti ci ba mu tooy xëpp bay roog a kii ko dindi ndox mi daal daal di jël kaamil bi teg ci dañ tuba gouverneur ne ko waaw laata muy wax ak moom rek mu dem lal si jaade gi kàbbar julli ci biiram bi mu jullee dawal ñaari rakka julli ba pare nee na mu ne ko waaw euh, togg bi sées bii nga euh, sotti ndox mi ba mu tooy loo ci jublu mu ne ko téere bi day téere bu tedd boo xam ne euh, di ko teg fu dul fu laab te yeen seen lépp sobel la moo tax ma moo tax ma laabal ko ngir teg ci téere julli gi ma fi julli nag moom dama xam ne bërëb bii ba ñu ko defaree ba léegi kenn mosu fee jullil yàlla kenn mosu fee julli te julli doo nga ci jekk te julli doo nga ci jekk ma taxaw julli looloo tax ma julli nga xam ne dafa kennal borom bi tabaraka ko taala léegi kennal borom bi ba gisul lu borom borom bi mu dëgmal rek moom rek la gis mhm. nee ñu gouverneur laaj ko ne ko waaw nun kat li taxoon ñu woo fi du dara lu may jéggalu la ndax mujj nañ xam ne ñoo ko tooñ reconnaître ko yóbbu nañ ko te mënaluñ ko dara mujj mu mu ne ko euh, ku mag ka ca kaw de moo yónnee ngir ñëw ngir ñëw sant la euh, gërëm la jéggalu la te loo bëgg ñu defal la te loo bëgg ñu defal la ko la mu ko tontu mooy li ma bëgg moom mënu leen ma ko defal sama borom ko moo ma ko mënal te mi ngi ma koy defal ñaareel ba mooy ñu ngi lay ñu ngi lay ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm mu ne ah bu ngeen ma gërëmee gërëm ku leen dut gërëm gërëm ku leen dut gërëm nga gis ne lu leen may dara. xam ne da leen a marqué <laughs> sa ndox. Mm-hmm. na ne doo nga mën ci moom dara. damay dégg xam ne borom bi képp a ci moom dara. moo koy moo koy jariñ ci lépp. waaw ah, moo koy jariñ ci lépp. moo tax tubaab ba doon doon doon wax naan. xaw ma së sëñ bi ba mu dellu si waatee ci jamono. Mm. dikkaat fii di di siyaaru jox ci Modou Sow ci Jurbel euh, naan ko euh, sa seen sëriñ bi xaw ma lu ko yàlla ji jaraloon. Mm-hmm. waaye moom jaral yàlla ji jaraloon na ko bakkanam mm-hmm. ndax tey la woon na ko fenn fa ne daal. bu taxaw pour défendre boromam bi nga xamante ni moo ko may. gëm gim gëm yàlla. Mm-hmm. moo tax mu naan billaahi amantu la wax. wa wajhi euh, usallimu abdun walin nabi axdimu gis nga def ne. waat naa gëm naa yàlla yàlla rek laa gëm gëmuma ku dul yàlla sama jëmm jii borom bi laa ko jébbal jébbaluma ko kenn ku dul borom amul kenn ku ma jël sama jëmm di ko jox ku dul borom subhanahu wa waaye nekk ab jaam boo xam ne day liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon abdullahi wa xadimu lépp lu ko waaye tudde mbaa di ko nga di ko askanale te wóoyoo ko loola rek tooñ ko gis nga ci eh, mbàkke ci la mujjoon ne ahmadou bamba sàll ba kooku kenn woowee waaw ñu ngi koy woowee Mouhamad ibnu Mouhamad ibnu Abdillah allahu akbar li ko gën a neex ci digganteem ak boromam li ko gën a neex mooy tur wi ñu ko tuddee mooy Mouhamad. waaw da ko kenn waxati bu kenn askanaleeti ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bokk na ci lii wéral lii wane tawxiidam tawxiid gi di ko doon dund. di ci di ko dundaloo ñun yar mooy nazaani nazaani minal waral baaxil xadim gis nga. allamani bi annani abdul xatim suñ boroom dama nocc ci mbindee mooy du ci moroom kenn amu du ma ci nawle amu ci nawle waaw <laughs> ah, amu ci nawle waaye nag mu xamal ma ne ah ab jaam nga di liggéeykat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom loolu allamani bi annani abdul xatim d'accord na ne nocc ni ko ci mbindee yàlla ko defal ak jagle goo xam ne yemuma kenn ci mbindee iwa eh, ci eh, ñi muy doxandool ci yàlla ci yoonu yàlla waaye nag dolli ca xamal ma ne ma kat ak ab jàmm waaw liggéeykat yoon kon garaat bu ñu ko mën a jox burut abdullahi wa xadim rasulihi garaat boobu jàpp ko mm-hmm. bu ñu ko mën a jox rek bokkut ak eh, ba mu woote ba ba mu mu wooyee borom bu gis ne sëriñ bi tawxiidam ni mu dëgëre woon àggoon na ci daawut jël asbaab yi al axdu bil asbaab mm-hmm. daanaka da daan toll foo xam ne léegi-léeg ca xaal du ko jëfandikoo day bàyyee boppam borom wakiilu gu mat sëkk sëkk nga xam ne antal wakiilu alladi qad iktafaytu bihi fi dafi wal jalbi e yaadal xalqi allah boo demee ca bismillah ik fili yam taxasi di gum tudde ik fili dégg yaay ki ma wéeru yow suñ borom bu may xëcc bu may xëcc njariñ di di wut njariñ ak di dàq lor yépp yow sunu borom ci yow lay dal amul keneen ku muy dal ku dul borom bi kon loolu dañoo jàngal dañoo jàngal ni njariñ ak lor lépp ci borom bi lay jóg waaye jógewut ci benn bés bi yaakaar na am na xëcc dégg nga koy waxee naan a nafa di naan njariñ ak lor nekkul ci loxob kenn ku dul loxob borom bi su nekkoon ci loxob doomu aadama rek mën na cee def lu ko neex na koo soo dee tamit xëcc daam yu bëree bëri rek su ko dee tijji da koy tijjee ci borom bi tabaaraka wa taala day sant yàlla julli ci moom julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam soo ko dikk yaa ngi gis sax ba gaa yi tuumaalee ni ko day di jihaad dana inni ujaahidu bil ulumi wa tuqa man xam ne sama jihaad gi ma jihaad xam-xam la ak ragal yàlla mhm. kon maam ngi ne addunaam gépp rek da ko jeexal ci dundal borom bi tabaaraka wa taala kennal ko ba jox ko wàccuwaay boo xamante ni moom rek moo ko yeyoo amul keneen ku ko yeyoo ni mu kennale borom bi ci mbindam mhm. ci mbindam ak dundiinam mhm. moom mësuñoo gis ku ni mel huwa alladi lam ara xayruhu la wax yàlla mooy ki nga xam ne mësumaa gis mukk mukk ku mel ne moom lu mel ne moom wala ku mel ne moom lam ara xayruhu nga xam ne nafyu al maadi ndeysaan bu àndeeg mubaara mosuma gis mukk ku mel ne moom lam ara xayruhu wala arahu fi cheyin hada fi cheyin hada wa nawala amul dara tamit loo xam ne danaa ci gis lu dul yàlla li muy gis lépp suñu borom la ciy gis loolu mooy kennal kennal piir sëñ Tuubaa ko def sëñ Tuubaa moo kennal boromam kennal goo xam ne léeg-léeg la mu nu war a jàngal mooy nu nit nu kennal yàlla loolu lay jàngale yàlla lu nu war a kennal mooy kenn war a jàpp ne mooy buur bi nga xam ne mooy moom rekk yàlla moo man lépp mooy joxe wërsëg moo moom asamaan ak suuf lu ne ci dénd bi rek borom bee ko def te maanaam lor du dal nit mukk lu may sun borom ak ko teg waaye amul kenn ku mën a mucc ci dara lu mën a doon lu may sun borom moo la ca musal naa asaabaka min musiba ni ko ni ko borom bi di waxee ci alxuraan amul dara lu leen di dal lu may suñu borom ko nam waaye amul dara lu leen di mooy lu may suñu borom ko nam te muy de kon ni woon borom bi moom eh, wéetal la boo xam ne eh, ñëpp a ko gis moom sëriñ bi li lay wane la wéetal yàlla gi mu defoon nga xam ne yàlla rek la gis ci lépp mooy nee na bu may mere nit bu may noonoo ci yàlla lay noonoo moom moom ci yàlla lay noonoo moom waaye eh, كن به وعا به أعادي وبه أوالي بما يخاريتوك نيت تمت في الله في الله رجلا يخاريتوك نيت كن أغنانهم أكو خاريتوك لب في الله وي نيت كو أخمي دفع سجنه لي الله دقلت لي الله ترك نعم نعم دين وهو تعالى المتعالي الوالي كن لون لم يتكي موي أم توحيد أكبر جمت مت في الله رجلا كو جاهل أكبر جمم في الله رجلا كو جاهل دين tak meram tamit kalika ci yàlla rek. lo mer moy lu yàlla mer lu yàlla ba yàlla bañ ay du mer nit ci intérêt aduna ak. yooyu samay dëgg aywa kon loola wax na ko xubbi fillaahi wa bughdi fi wa bughdi fi li awsala ma kuntu ma kuntu astaqa kon ma kuntu astaqa kon loolu lamuy muy tekki mooy lu muy def rek borom bi rek borom bi tabaraka subhanahu wa taala ca lay delloo lépp denga kon lolo lamuy muy tekki mooy lu am solo rek lay tekki kon euh, ni ngi non leppam yeetal borom borom taala nga xamni kon cheikhul khadim mi nga xamanteni ni lañ doon waxtaane ci mbir mi nga xamanteni ni la tank ci jëmmi tawhid tam jere jego ci abu musa al ashaari abu hasan al hasan al ashaari ñoo ngi jéglu lu baax nga xamanteni ni rek da ko indi ci wéetal borom bi tabaaraku taala ak liko yalla jaral ba tax mu ñeme cee sacrifier tay la ci bakkanam ngir jëmmi borom bi tabaraka wa taala ak ngir liggéeyal ki nga xamante ni mooy yonent bi alayhi salaatu salaam te liggéeyal yonent bi alayhi salaatu salaam képp ku koy def tamit liggéeyal borom bi tabaraka wa taala mooy doon sa objectif bu mag nga xamante ni moom nga war a njëkk a pour bëgg a gagné nga xamante ni moom nga war a gagné sa adduna nga gis ni am njàngaleem bind mi nga xamante ni da ko bind lépp rek borom bi tabaraka wa taala da ciy feeñ ay yitteem lépp borom bi tabaraka wa taala da ciy feeñ am ndoxinam lépp borom bi tabaraka wa taala da ciy feeñ ba doon nañ am ben xissa bu ndane nettali ni masna wo ki nga xamanteni ni mag ni ñepp ban dik mu ne leen da bëgg mag ñu ne ko wa mu ne way man bëgguma leen ñu ne ko lu mu ne man yalla rek la bëgg sama xol te bëgguma kenen di la jël di def sama biir xol waaye nak sopp na leen sopp na leen nga xamni ni day jangale yitte ju kawé pour nit ñi am himma yoo xamanteni ni lu wër lay doon tam da so xone tamit bi nga xamanteni ni la ko yónni bi ali salaam di wax nag wa rabbi ashabaka bi himma wala ashabaka bi darsi fakhat day wane ni maam jëmmi himma je mooy ñu xam kan mooy borom bi tabaaraka wa taala ak naka lañ ko mën a teewloo suñu biiri xool ba mën koo wàcce léegi su doon dañuy am benn parenthèse mag ñi nga xamante ni sëñ bi yar na leen ak doxin bi nga xamante ni doon nañ ko jox ci wàllum tawxiid soo ko doon comparé ak suñu jamono tey jii nii suñ suñ suñ masamba déet bu boobaa day soree lool ndax mag ñi sëriñ bi def leen a nàmputal ci tawxiid ci bëgg yàlla ci bëgg yàlla xam nga ni yonent bi defoon saxaaba yi départ ba ca Makka ba muy door a tàmbali daawa bi tawxid wéetal yàlla rek lay def ca fukki at yi ak fukki at yi alquran yi wàcc yépp ñu ci ëpp ci tawxid la wax mhm. nañu wéetal yàlla buñ koy wéetal di wéetal bu bëgg yàlla nag mhm. pour mu def loo leen jaamu yàlla day yomb day yomb loolu pour mu def loo leen jaamu yàlla loolu daa bokk ci mandargay daawa bëggloo nit ki mbir mi ba mu bëgg koo pare ah nga ne ko nii la buy juum ca na mu koy defee nga ne ko ah lii kat kenn du ko defee nii lii kat kenn du ko defee nii lii kat kenn du ko defee nii mhm. kon fexe bañ bëgg yàlla la def ba pare yenn sam dafa fexe bañ bëgg yàlla saxaaba yi bu loo leen wax ne yàllaa ko wax rek ñu def ko waaw su ko defee nag mu door leen jàngal charia fiq door a wàcc ak yu mel noonu ak fiq bi mu wàccee eh, islaam ihsaan door a ñëw mm-hmm. mooy fiq bi ñuy jëfe di jëfe di jëfe mun laa jëfe gi kat day ànd ak sellal yàlla rek tax kon eh, lislaam am njàngaleem noonu lay demee day demee day dem xutwa ab jéego par jéego jéego par jéego waaye duñ jékki-jékki rek indi loo def sëriñ beet mag ñi noonu la leen def dañu leen fexe ba xemmem loo leen yàlla ñi nga xam ne dañu fay ñëwoon ci moom bari woon nañu wattoon alquran lool bari woon na ay jaamukat yàlla waaye ndax ixlaas ba sellal ba dëgg-dëgg defal ko borom bi képp am na ci yoo xam ne daa desoon war da leen di bëggloo eh, wéetal borom bi subhanahu wa taala ak jaamu yàlla ak ak ak ak ak teg lépp ci sunna ak tawxid bañ lagg ca ba toqi ca moo tax bi mu demee Baleen daanaka kenn mënatut a dellu si waat ci àdduna waaw mm-hmm. ah, dootuñu soxla àdduna mënatuñu dellu si ci àdduna ñu mm-hmm. bari nañ déparé woon ak moom bi mu fi jógee wala leen ginnaaw noonu lañ continuer ba duñ fi jógee mm-hmm. mënatuñu dellu dellu ginnaaw ci di bëgg àdduna ak di bëgg yu xotaamu dunia poñ poñ itam àdduna bi soxlaatuñ ko noonu rek ci lañ wéy kon eh, bëgg guñ bëgg tawxiid bëgg yàlla ak wéetal ko ci lépp loola daa feeñ ci seeni doxalin feeñ ci seen seen jëflante ak sëñ bi ak Eh, keppaaru sëriñ bi radiallahu taala anhu xam fu ñuy teg sëriñ bi ak fu ñuy teg yàlla ak fu ñuy teg yonent bi dañuy wax ne sëriñ Mahamadul Moustapha nee ñu mas naa seet si eh, sëñ Touba ànd ak ku ñuy wax sëñ Ibrahima ngoone nee ñu bi mu dikkee eh, ba agsi ci buntu kër bi ba dugg sëñ Ibrahima Ngóone ko dàll yi nee na mu toog ci sëñ Touba diir nee sëñ Ibrahima Ngóone daal bi sëñ bi sëñ Moussa woolu ko bi mu dugg see nee na maa ngi ko fekk mu jël eh, eh, jëbi wala sikkim bi teg ko ci tànk yi sukk di rëpp nanguñu koo xool di xool ci suuf sëñ bi di wax muy muy yëngal ko ba mu paree nee na maanaam ma dugg ci jotaay bi rek mënu ma faa toog ma génnal nee na nee na nee na sëñ Moussa bi mu paree bi mu génnee damaa rombal vitesse ma daw tegal ko daal lii ci kanam mu romb daal di jéggi ko jàll ma damaa tegaat daal di ci kanam mu romb ko jéggi jéggi ko jàll mel na ko ab àll ba mu yàgg mu taxaw ne ma Ibra Ngóone ma ne ko Mbàkke mu ne ma kii ma jóge ku la ko gën a xam gën la ko ragal sàkkan tubaab yàlla ma ko bind waa ah, xoolal dimension bi mu teg Serigne Touba nga xam ne da nga bii moom moo gën a kawe waaye mu teg ca ne yàlla mi ko bind te doxale na yonent bi seen diggante kon loola eh, la muy tekki mooy dañoo xamoon fi ñuy teg sëñ bi xam fi ñi teg yonent bi xam fi ñi teg yàlla ba duñ jaawale duñ jox kenn loo moom duñ ci déng dénga ci benn diggante duñ jox kenn loo moom kenn ku ne daal li nga yor rek moom la lay bàyyee seen tawxid noonu la selle ak lu mu mën a wax sëñ bi lu mu rëy rëy xam nañ ne yàlla rek kay yàlla xam nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak yonent yëpp la suñ borom jox tawxid wéetal yàlla ñu dikk mooy message bi ñu njëkk jàllee ci kaw suuf ñoom yonent kon noonu loolu la yare mag ñi lay gis ci téere yi rek amul werante moom ci loolu la yar mag da ko bind sax ba fi mooy ta tawxidu takallum mooy li mu bind ci téere tawxid yi bind yëpp nga xam ne mat na fukk wala juróom-ñeent ak jaxaan yi nga xam ne li mu bind lépp tawxid ci ëpp wéetal yàlla moom ci ab murit gis nga tawxid ju set yoo xam ne dara kooju ko dara raxu ko ci ab murit lañ ko war a lañ ko gën a seen ko ndax sëriñ bi moom li mu taalif ci tawxid ci aqida kenn gisul lu ñu toll ngir bari ku bari kon daana wax laa ilaha illa allah xam nga mooy kalimatu tawxid amul benn buur bu war a jaamu jaamu ko di dëgg ku dul yàlla moom nu mu ko daan firee mooy ku jaamu ku dul yàlla da nga xam ne yàlla rek yàlla boo dajeeg moom. ku topp ku dul Moustapha sallallahu alayhi wa boo dajeeg yonent bi da xam ne Moustapha rek la yonent bi. moo jar a topp moom moo macha allah. gis ne ni mu daan firi laa ilaaha illallaah ak ni ko yenn borom yu njëkk yi daan firi. daanaka du bokk xam ne maam daa am firi bu bopp moom dañuy xaasatan allah imaam Massamba dafa mel ni waxtu wi xaw nañoo xoj ñi ngi ñu ngi signalé ni waxtu waa ngi bëgg a jot léegi suñ la doon laaj rek li nga xamante ni mooy lay biire bu mujj bi ak sa kàddu bu mujj gi nga xamante ni moom ngay dénkaane rek ñoo tëj émission bi jàmm suñu sàmba ba li may lu dara lu may li Serigne Touba dénkaane woon mooy eh, ndaw ñi nañ leen jàngal xam-xam xam-xamu diine bu sell jiital ci tawxiid bi set wicc du dara koo teg ca fiq teg ca Euh, tasawuf ñu jéem a dund li ñu jàng li ñu jàng mooy ihsaan jéem a rafetal li ñu def ñu def ko ngir yàlla te yàlla tax loola rek mooy li mu soso yoon bi mooy ilmu naafi xam-xam bu am njariñ nag yii da ci dugg te aqida tawxid ak fiq ak tasawuf amalu saalix jéem a jaamu yàlla nag li nga jàng nga jéem koo jëfe nga jéem ko jëfe loolu mooy cheikhul murabbi loolu ko tax a jóg jéema a jéem a fexe Eh, jaamu yàlla làgg ci ay waxtoom yépp mu jeexal ko ci jaamu yàlla farata yi ak nawafil mhm. bu farata yi jeexee nawafilu rawaatib bi yi nga xam ne julli farata bu nekk am na ñeenti rakka yu ko jiitu daanaka mhm. ah bu jeexee mu teg ci wirdu wirdu màqul mhm. ngir eh, ginnaaw takkusaan ak ginnaw suba nga xam ne amul naafile eh, faraax boobu mu sadd ci sànni ci mu dugal ci wirdu ngir waxtoom dara bañ a ndax saay sëriñ bi mës ta bëgg loxoy kese kon ndaw ñi nañ leen soññ ci Euh, xam-xam bu am njariñ ak euh, jaamu yàlla ak adabul mabbi mooy ay teggin euh, nii jaam bi di amee teggi digganteem ak borom loolu mooy tax nit ki am yàlla xam nga nit ki mën naa dugg aljanna bu faato te du am yàlla am yàlla nag la koy maye mooy ay adabul mabbi kon li mu tënk yoon yi rek lay fàttali ndaw ñi ndaw ñi nañ leen sóob ci xam-xam mm-hmm. xam-xam mooy tax nit ki xam sëñ Tuubaa sëriñ bi doonut lu ñu ko ñuy xam sax dëgg dëgg waxee xam-xamay tax nga mën caa xam dara dañuy faral di wax naan sëñ bi nekkul ci téere dëgg la waaye sëñ bi sëñ bi eh, li bëgg ci nun yaa ngi koy mën a xamee ci ay téere ci li mu bëgg ci nun yaa ngi koy mën a xamee ci ay téere daa waxoon wax jom solo nag ne seytaane moom dafa bëreeg moom ba daan ko waaye da ko marqué benn point maanaam bu doon wax naan d'accord xusi daal xusi ga nag mooy ñàkk jàngoog murid ñàkk jàngoog murid wa min makaidil lainil mujrim saddul muridin an taallumi alhamdulilahi rabbil alamin yàlla jox na ko ndaw ñu bëgg xam-xam ci dëkk bi di ko tasaare nangu ca sonn nangoo jàngale ci majalis yi nangoo jàngale ci ecole yi mm-hmm. eh, ñoo ñu nañu leen déglu mm-hmm. dëgg la sëriñ bi woote nañ ko ba ñëpp wuy si mm-hmm. waxkat yi moom am na mission bu am solo bu ñuy liggéeyal Serigne Touba mooy woote ba nit ñi sopp Serigne Touba mais nan lañ ci jariñoo mooy problème bi jariñu ga mooy problème bi nag la ñu war wax nit ñi su naka lañ koy doxal ñëpp bëgg nañ ko mais nan la ñuy jariñoo ci moom toog di nettali jaar jaaram yoo xam ne daanaka at mu jot moom lañ ñuy jox déedéet nan lañ ci benn version bi ngay dégg at mu jot dañuy sóob nit ñi ci wérdu bi jërëjëf eh, kon loolu mooy li may tëj insha allahu taala te kilifa yi joxe wérdu bi hmm. eh, ndaw ñi tege ci yoon jëfandikoo charte ya kon ñu ngi tëj foofu incha allah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Imam Massamba Sylla ñoo ngi lay sant bu baax a baax ci woyof geeg nangu ci wuyu yi nga xamante ni ñu ngi koy séddu émission yi fu ñu toll di sant bu baax a baax a baax di nuyu ak di ziare mbokk yu tedd yi nga xamante ni ñooy topp émission bi ku mel ni sunu baay bu tedd ba nga xamante ni ma nga ca Ndakaaru di Serigne Cheikhouna Diakhaté day koo xamante ni daanaka weer yi nit ñi di tàkk daal képp koo xam ne bëgg nga ci barakat rek la moo la koy jaay. ak serigne abdourahman sar mi nga xamanteni ni médecine traditionnelle la ñoo ngi koy ziar wér a wér a Idrissa gay ak serigne Modou kayra nga xamanteni ñoy ambassadeur mi taxul Muna gep ñu ngi leen ak wa dëkk ñi nga xamanteni ni ñoo nekk ci bimu Miftahul Muna ñëpp ñu ngi leen di ziar tamit kep ko xamanteni mi ngi mbégi ak di safo émission bu tedd bi nga xamanteni mo jota yu xam-xam ak gaay yu tedd yi nga xamanteni ni ñoo ak ñi nga xamanteni ni ñoo réaliser ak ñoom ñëpp daal ñu leen ak di ziar sunu cameraman nag fi ñaawul bi Alhaji Badara ak ki nga xamante ni mooy sëñ Assane daanaka moom kàcc kàcc far la nekkee soo ba léegi <laughs> ñu ngi siyaare gars yooyu yëpp di nuyu di leen baax a baax a baax ci li nga xamante ni moo fi am di wax ñi nga xamante ni ñoo koy déglu ak di ko safoo loo xam ne lu ci jubla xam ne ci borom bi tabaaraka wa taala la moo xamante ni moo xam moo ko waaye lépp lu ci dëng rek ñu xam ne ci ñun ñi nga xamante ni ñoo toog di wax la ak gàtt xam-xam te bëggoon mu gën a leer bëggoon mu gën a neex bëggoon mu gën a yaatu lépp rek dañ cee jublu ngir tasaare xam-xam ak ngeen xamale li nga xamante ni mooy mbir mi waaye ñuy fàttali ni émission bi ni muy demee daa iman ni lay demee di nuyu tamit waa groupe whatsapp bu jotaayu jotaayu xam-xam ñoom leen ziar yi ñoom ñëpp gis nañ taxawin wu am solo bi nga xamante ni ñoo ngi koy taxaw ci kii bi waaye di wax ne émission bi ni muy demee toujours rek mooy xam-xam lañuy waxtaane te xam-xam lañ bëgg mu feeñ xam-xam lañ bëgg tamit mu béjj xam-xam lañ bëgg tamit mu na ba murit yëpp man cee jariñu ak koo xam ne ne am murit nga ak doo murit lépp rek ñu bëgg ko di ñëpp di leen wax wa aaxiru daawaana ne alhamdulillah yaxfirullah li wa lakum wa lisaa'iril mu'minin wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf